jour bi ay chef du couleur pour Les femmes sénégalaises de Bilbao présentent Wally Balago Seck à Bilbao. Attention, Bercy Bilbao. Le 5 juillet, fan la Santana 27 Fever Bilbao Vizcaya. Co-organisé loolu ñu ne Fama et Rama doomu ndeyu Penda Naar sponsor officiel restaurant Tangana PDG bi di Soxna Khady Fatou Cissé Madame Sall responsable Ami Salam marraine yi Kër Belma boutique PDG ba di Fatou Dia parrain ba Djilignan Rosa Zaher restaurant La Saint-Louisienne PDG ba di Bijou Mbayang Khoulé Dine Khoulé ASC Bakhyaay présidente ba di Anta Ndongo Touba Cosmétique PDG ba di Fatou Seck restaurant Sénégambia responsable ba di Astou Cissé restaurant Te Baobab responsable ba di Maman ASC Teranga président Abdoulaye Wade ASC Bassori présidente ba di Binta les astuces de Ramitag PDG Ramathoun alimentation Mam DG ba di euh, soxna Aram kër-këri dag dagi waaw waaw du wadi borom kër Wally Balago Seck à Bilbao le 5 juillet 2024 infoline 34 63 22 97 541 34 60 28 14 193 wala 34 63 28 29 272. teranga taski ne daga na we daga bi am maa de snap waaw tey suñu xarit suñu doom rek laa ko délégué waat di kenn ci wàllu balaa Seck moom moom parce que man nag di tàkkee fële ci États-Unis naa seet ak Sénégal sëy bu barkeel yàlla yàlla barkeel sëy bi yàlla yàlla boole seen jikko boole seen wërsëg may leen jabar bu barkeel ñu mag na mu sant di barke seen awa salaam waaw man nag célibataire laa nag waaye célibataire nag boo xam lu baax laa nag célibataire bëgg lu baax nag boobu rek maa ngi casting mais casting bi léegi mu jeex nag incha allah ndax xewu tàngoo dafa métti ma bàyyi ma seddaay bi rek nag jabar benn yoon incha allah conseil xam nga célibataire mën na conseil marié mën na bañ a waane moom bi dana yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla ko yàlla barkeel sëy bi yàlla sëy sëy bi sëy yi jàmm ci aras bi ma njëkk a constaté ci xew yi nag damaa ñëw dégg dégg dégg son yu son Sidi Diop ci baax nag man ay waaye alhamdulilah rabbi alamin délégué a takk jabar sama gis yi di jóg ne ci base ba yàlla na jàmm yàgg. wàccee seen micro yi. non maanaam dama xam ne musique c'est la musique qui gagne c'est le Sénégal qui gagne c'est l'Afrique qui gagne et si yëpp xewlee lu toll ni si ni jëppaay yi ko def ba la jàppale la fii ñëpp ñu ko a kanam. mën a am mën a am ban concept la loolu si mën a ci kaw. question yëg boo ak si gëm-gëm la rek parce que boo jàppoon ba dañuy anniversaire ngay dem ay xam si ba si zone de président ma présidence c'est le chemin. zone de présidence yéen ñi yëpp amul kenn bu ko des. Diomaye mosul génn RTS génn bu leer wala génn ko génn 30 secondes léegi ñoom ñoo bokk ndey ak bàyyi man état laay na ma lépp li laay topp bokk opposant damay liggéey su baaxuma politicien yor ma carte APR yor ma carte Pastef yor ma carte beneen parti mais képp ku président sunu wërsëg boole ji dinaa liggéey te yàlla rek tax ma benn nag benn benn retour damay liggéey te yàlla tax rek liggéey te yàlla tax ak gëm li muy liggéey ak fonk liggéey bi mun foofu laa ñëwee su ma ñàkkoon si Sidi Diop Sidi Diop sama xarit la Sidi Diop la may wecc la la may jox sama wecc ma ko Sidi la ma lebal sama jox ma ko ndax fu ma fekk moom may way moom may Sidi moom may sagal moom may yëkkati sama xarit la sama rakk la lépp jaar na ci suñu grand ñu naan ko Matar Diop ceeb bi rek moom la xal ma yàlla bu yàlla bi non du ay sóob man naa mooy sóob bi yéen a jàpp ay minimiser ndax yéen a jàpp minimiser yéen a nekk man na ma foofu yéen ay gars yi rek ñu ngi naan gars yi gars yi yéen ay gars yi rek la am des nag yéen ay gars yi amul polémique ndax ñoom ñaar mosu ñëw xuloo mosu ñëw waxante lu ñagas waa tribune dëkk ba ñooy kaas rek ak ak supporters yi mais Sidy Diop moom defoon na amul sóob bi moo demee noonu rek sóob bi maanaam Sidy Diop mosu wax lu ñagas waa di seq waa si mosu di leen màggal. waaw. d'accord moom suñu frère la quoi moom. vraiment. délégué moom ku ko xam xam ni ñu ak moom ñoo bokk ndey ak baay waaw moo tax bu ñun li ñu war a def rek lañ def ah bu wootee ñu ñëpp war a ñëw waaw. Mhm. daal di bàyyi seen yitte yi ñëw ci li nga xamante ni moom mooy takk bi lan moo leen soodee quand même ba ngeen bàyyi seen yitte bi ñëw. waaw mais Moodu Moodu Amar mooy Waly Waly mooy Moodu Amar waaw Moodu Amar moom suñu frère la comme ni ma la ko waxee rek bu xewlee ñun ñëpp a war a ñëw waaw loolu la ñu war a def loolu moom yàlla ko waaw yàlla sama diggante maag Waly moom suñu borom la quoi. papa doom mag ak rak ay seex lépp yàlla moo ñu boole waaw sa ci Wally kenn dootu ko naatable mais tout le temps dañuy gis booy wax ci Wally Seck sa ronga ñi di taal lan mais parce que mooy li ma xool na keroog boo jàkkaarloog moom ni ko yaa ñu gën suñu bopp parce que ni mu leen téye tax Wally moom mënu wax sax ci moom waaw man man man man sama lépp waale la waaw vraiment bëgguma wax sax ci moom waaye dañ koy ñaanal rek vraiment man ñaan laa seqam moom quoi parce que am na loo xamante ni lu ñu mën a wax lu yàlla suñu borom dogal la waaw sama diggante moo waale xaw ma sax lan la papa ak doom la xam nga loolu jege waaw loolu rek waaw. barki démb dañoo tiim micro Omaro Omaro di def témoignage si yow. ne Wally dafu la jëlee fenn foo xam ne fu doy waar nga defoon accident bu métti daanu troisième étage nga am ay dam damb yu métti wala Wally daal otom di la wëral ci hôpital yi ba dajeeg yow faj la ba nga toll ni nga toll nii tey. mais am nga loolu am na lu jiitu loolu mooy li ma lay wax loolu moo mujj sama diggante mag Wally du damaa defoon choc vraiment man mën naan la bi ma juddoo ba léegi li ma am ci bànneex sama àdduna daanaka Wally Seck moo ma ko defal waaw damaa demoon choc mais alhamdulilah Wally taxaw ci ni mu ci war a taxawee waaw vraiment. nit ñi ngi wax xoolee ko ci man rek man rek doy naa misaal loolu loolu loolu waaw man rek doy naa misaal waaw dafa mën ni tam moom loolu moom mooy loolu parce que ñu ngi koy sentir ci teew. ah. yan situation nga nekkoon. yan situation. nga nekkoon Wally taxaw. na ma sax. Hmm? Wally moo ma defal sang ma tiim na ma sang ma ba ma set. Ah, xam kon loolu moo gën a rëy. kon kooku moo ma defal. Hmm. sama diggante maa ngi Wally mënu ma wax lépp man du ma wax sax ci média. mais keroog jooy lu ko waraloon lan nga fàttali. waaw mais parce que mooy li ma ko waxoon. li fi jaar dafa bari te Wally chaque jour ñun ñu ngi àndal chaque jour mu wan ni lu ñu lu ñu gënee maanaam bari na loo xamante ni comme doon ñun ñun defante wala dara mais moom dafa jéggal lépp fàtte lépp man xam naa ni waa li mu doon dox ci xolam la ko jëlee vraiment. dégg naa xam naa ni mu doon dox ci xolam la ko jëlee mooy ma wax Wally gëmul ku dul yàlla musique bu fi yemoon tey Wally pare na kon li ci des lépp dafa war a rafet loolu la rek. wax bu jóge ci xol. est-ce que di ngeen sentir ci show bi yéen waa Faramaren puisque Sidi Diop léegi yéen a ngi yéen a ngi koy baal sax di ko di ko gën a dooleel ci li nga xam ne moom moom la sumb muy Zénith. waaw déggoo li ma la wax ki mënul wala ki amul mooy soxor mais wala dépassé na fu muy soxore vraiment musique bu fi tey ñu xam ne wala pare na. waaw bu liggéey jotee liggéey na vraiment lu waaye mën a wax wax xam ne Wally bu liggéey jotee marqué na empreinteem fii Sénégal waaw Sidi suñu rakk la suñu frère la comme ni ñu war a mën a jàppale Bambali jàppale keneen loolu lañ ko war mën a jàppale du lii di concurrence waaw fii Sénégal ku fi xool xam ne wax dëgg yàlla king bi mooy Wally waaw mais boo jekkoon nag da ngay baal nit ñi waaw may leen ñoom loolu dara si dara war na ko mën a jàppale rakam la bu ñëwee ba këram wàcce boppam tàggu ko comme ni mu defal papa Youssou Ndour defal ko ñeneen nag ñeneen bu ñëwee ci wàllu wàll da koy jégal loolu du dara Sidi suñu frère la waaw. d'accord mais ñu jàpp ni guerre bi ñu bi mu doon guerre ak Sidi moom la arrangé wul tamit. guerre comme. coow li fi amoon wax coow yi am ci seen diggante ñu bari dañu ne Wally Seck la arrangé wul mais pas Sidi parce que Sidi mooy xale te moo nekk ci yoon. am man am na côté boo xamante ni déjà man maa ngi doog wax di taxaw jàkkaarloo ci média di wax mhm. parce que bés bi li mu toll wala dara mi ngi wax sax waa du ci bàyyi xel billaay wallaay bàyyiwul sax xel bàyyiwul sax xel billaay bu ko defee nag ñu tënk te xam ne dañoo ñëw ci suñu takk frère Modou Amar yàlla na leen suñu borom defal jàmm defal ko jàmm Waly Seck yàlla na ko suñu borom doolu sutura mu sut ndayam fan sut baayam fan waaw ndax li lépp moo ko boole jërëjëf waaw kontaan sama xarit dafa ñëw sama mag dafa ñëw. suñu mag suñu xarit dafa ñëw. ki ñu bëgg. ki ma jàppale. ki ñu jàppale. may jox ma lekk ba suur wax naa ko loolu laa génne léegi. ki ñuy ñu lekk ba suur. di ma jox may solo. di ñu jox solo. bu tabaski jotee. bu tabaski jotee. mu jël ay koppar yu bari. di ma ko jox. di ñu ko jox. bu koor jotee. bu koor jotee. muy jël ay koppar yu bari. di ñu ko jox. di ñu ko jox. ki ma bëgg. Ah. ki ma jàppale toog suñu kilifa mu alaaji papa Dieng suñu bàyyi yow bu la gisee dañuy wàccee ndongo yëpp wàccee lañ ngay nag xam ne yaay kilifa bi ki am na sa rak waali sekk di ko jàppale di ko dimbali yow bëggoo ñu am benn problème bëggoo ñu toog ndax liggéey bi ci kanam sa idée sa xel sa xalaat sa lépp waaw waaw bu la waxee nga ñëw nga yegg sa biir bëgg nga bëgg kay Tumare Ndiaye toog Kéba Toumane Ndiaye baara may mbëkkante mbëkkante baara may mësu sunu baay bi ñëw na xolal baay daal di Amar ñëw na Kéba baay daal di Amar ni ñëw na ni Ndiaye. kii wàcc ndongo yëpp. wàcce lenge yi nag xam ne yaay kilifa bi ki ànd sa rak Wally Seck di ko jàppale di ko dimbali yow bëggoo ñu am benn problème bëggoo ñu torox ndax bëgg nga liggéey bi jëm ci kanam sa idée sa xel bëgg ma nag ba mu jeex tàkk barke Seydina Muhammad yow yal na yàlla guddal sa fan nga am fulla am fayde am fa fonk sa njaboot baax lool barke allah ji fallu mbàkke jullite yow da nit ku baax da ngay dugg si nag fekk may wax waaye boo dugg see dama naan taj wax ci yow di nuyu tamit sama xarit bi ah Ibra Fall nga xam ne maag moom ñu yàgg loolu moom it muy nit ku baax nit ku am personnalité. merci. waaw mais ziar mais suñu ko amee mais suñu def rafet su xëy na de am njëriñ jamono yi moom moo nekk gars yi moom la ñu yor. waaw yàlla la koy jox matériel bi. waaw naka la nice. l'actualité. Parce que gis nañu ne des temps aussi ay des journaux à la une des réseaux sociaux à la une d'après ces propos yi nga xam ne kii bi tuur na woon. xam naa ni benn ci waxtaan la prochaine fois. li ma tax a jóg tey. félicité. sa déjà si daal ku ci xam-xam ne bi ñu toog donc lii ñu nekk mais wax. Jërëjëf maa ngi Jagana bijou bi Aïcha du couleur pour les femmes sénégalaises de Bilbao présentent Wally Balago Seck à Bilbao attention Bercy Bilbao le juillet fan la Santana 27 Fever Bilbao Vizcaya co-organisé loolu ñu ne Fama et Rama doomu ndeyu Penda Naar sponsor officiel restaurant Tangana PDG bi di Soxna Khady Fatou Cissé Madame Sall responsable Ami Salam marraine yi Kër Belma boutique PDG ba di Fatou Dian parrain ba chéri Rosa Zaher Diabira restaurant La Saint-Louisienne PDG ba di Bijou Mbayang Khoulé Dine Khoulé ASC Bakhyaay présidente ba di Anta Ndongo Touba Cosmétique PDG ba di Fatou Seck restaurant Sénégambia responsable ba di Astou Cissé restaurant Baobab responsable ba di Maman ASC Teranga président Abdoulaye Wade ASC Bassori présidente ba di Binta les astuces de Ramitag PDG Ramathoun alimentation Mam DG ba di euh, soxna Aram. kër kër yi dagdagi waaw waaw du wati borom vingt Wally Balago Seck à Bilbao le 5 juillet 2024 infoline 34 63 22 97 541 34 60 28 14 193 wala 34 63 28 29 272.